bàkk ba jibati na jër ngeen jëf mbokki wasaare lamb wasaare TV ñoo ngi leen di bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag maa ngi fii ci géejiwaay seet si ki nga xamante ni mooy Père Diaw waaye nag avant ma koy jot lu nekk daj naa ko ndax ay mois ay mois maa ngi koy wër di ko jéem a jot waaye nanguwul woon wax fenn waaye nag ki ma booleeg moom ki tax lii mën a yomb ci man kilifa gu mag la maa ngi koy jaajëfal di ko ba di ko di ko di ko sant bu baax a baax bu déggee lii dina xam ne moom moo fi jaar tey nag ñu dalal ki nga xamante ni mooy Père jaw bu Ikri Père Diaw bu kii géejawaay Père Diaw boo xamante ni mën naa ne monument la bii géejawaay damay dégg ñu naan euh, liiru Diane mooy monument géejawaay waaye kii ma toogal mooy monument géejawaay ñu bàyyi ko mu nuyoo xam naa ne bu nuyoo wax ak yéen ngeen xam ne am na lu mu représenté ci géejawaay te am na fu ko waa waay teg xanaa ma bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan bi mbokk yi Père Diaw nuyu naa. Jarbaat maa ngi lay fay. bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur maa ngi sant Maodo di sant Serigne Babacar si di sant waalo gi ma jóge di gërëm géejawaay gi nga xam ni def naa fi at yu bare di leen gërëm yéen ñi nga xam ni su jarbaat ngeen ñëw seet si ma pour ñu waxtaan mama bi nag euh, li tax may développé ci wàllu làmb mooy suma doom ji moo doon bëre bërka démb ci dimaas bi mu am lu bare lu ci xew mu am lu mu war a wax ñun dirigeant yi nga xam ni yàlla dogal na waa Géejawaay bàyyi ñu xel ci wàllu làmb ñu am lu ñu war a wax moo a tax di wax mais wax yiteelu ma ba ci kanam dégg ngeen wax yi teelu ko ba ci kanam waaye li ma wax rek wasaare làmb fépp foo xamante ne làmb nekk na fa wala fépp foo xamante dañ fa yaakaar làmb rek faaw ñu dem fa ndax kii ma seet si tey soo nee Balla Gaye 2 ne Père Diaw boo la Lac de Guiers 2 ne Père Diaw ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne nii dañuy yëngu biir géej waaye lépp lu ñu dox lu nekk rek jaw Diaw a ngi mais Père keroog dama laa gis nga indi sa ñaari doom kenn ki di Lac de Guiers kenn ki di Balla Gaye 2 keroog ñu gis la euh, nga andi Balla Gaye 2 mais avant làmb ji sax dama gis coow lu bari am ci stade bi maa ngi teg fii ci mukaay doo fi teg loolu naka la demee woon. waxoon naa loolu ci benn chute man naa am wax bi may waxaat du niroog wax bale ma juum ci mais nañ ma jégal xam ni wax bale moo tungoom wax bi may wax rek ni stade bi man teel naa ci wax. wax ni chinois yi dañu juum ñi leen tabaxloo juum ndax chinois yi bi ñu ñëwee pour tabaxal ñu stade dañu waroon dem stade Demba Diop seetaan si làmb dem stade de l'Amitié seetaan fa làmb soogam ñëw mën nu tabaxal stade ndax boo demee Chine réew mu yaru lañu ndax population Chine bare nañu bare waay goo xam ni yar rek mu leen jig ñoom seen xeetu làmb boobu ñuy def dañuy toog à zéro mètre ak lutteurs yi mais kenn du jog ñu jàppee nu noonu kuréel kii stade bi ci wàllu plan tabax ko niñ ko tabaxee mu nekk stade boo xam ne am nañ ci fierté trop mais erreur bi ci am mooy sénégalais yi ñoo ko tabax chinois yi ñoo ñëwoon di joxe seen xam-xam mais lu fa nekk ab sénégalais moo ko defar kon nañu woowaat benn entrepreneur bu Sénégal mu ñëw xool stade bi. état bi defaat ci même bu doon benn six cent wala benn un milliard ñu liggéeyaat ko ndax stade bi liggéey bi baax na mais fi mbër yi di wàcc stade bi dafa xat te am na noo xam ne buñ ko liggéeyul bis dana jot làmbaam te du egg ba nga laaj ma leneen. mais tey jii buñ ko doon bu ñu doon réfectionné waat stade bi naka nga xalaat ne noonu lañ ko mën a defee ba. ñun ñi nga xamante ne ñooy dund làmb mën cee gis suñu bopp. waa xam nga sénégalais yi duma ni mais ni ñuy dunde làmb daf ëpp sport bu boolewul warul tàggale man maa ngi wax ci benn chute man ni nañ ci def ay ipène walla ñu kuule ay poto yoo xam day am benn hauteur bi ñu gri ko ba nga xam ni amateurs yi du ñu am accès ci mbër yi dinañu mën a seetaan et ñu dagg ko ay parti ndax pour làmb di tas ba pare jàmm di am euh, parti seize yi ñu dagg ko ay créneaux yoo xam ni groupe bu nekk fa ñu nekk dañuy am benn porte dañuy xalaat rek ndax ci réew mi ñu nekk la su làmb amee yenn problème yi su amee dañuy ubbi par van bu van boobu demee ñu ubbiwaat beneen van même pas une de temps ñëpp dinañ ñibbi seen kër mais làmb ji dafa joge plus bi jóge nu jóge mbër yi bis mën na jot jaaykatu kanet yi dugg ci biir stade bi jaay nit yaakaar daf koy naan te du ko naan daf koy jël pour mbër mi joge ko bëgg-bëggam ak mere mbër mi tax mu xaañ ko. am na gaañu bu muy gaañu ñu jël ko indi ci médecin bi fekk amateur yi dagg nañ seen billet ñu ñëw xool ko ni kii mënatul bëree làmb ji yàqu kon matukaay yooyu laa bëgg président Macky Sall la jël ko matukaay yooyu laa bëgg ministre des sports jël ko matukaay yooyu laa bëgg CNC bi jël ko matukaay yooyu laa bëgg président du Diagne Diecko mi nga xam ni moo jiite amateur yi mu jël ko maa ngi toog sax di dégg beneen kuréelu amateur. mais loolu man ça m'a fait mal. les jeunes amateurs. les jeunes amateurs amul fenn li am mooy làmb ji benn njiite fi am dañ koo fal muy du jànje ko ñi fi nekk ci làmb ji la ñu fekk kon kay ni Guédiawaye créé bureau bureau des amateurs am Pikine créé ko ginnaaw raay créé ko Yaraax créé ko keneen créé ko réew mi benn président la muy président de la république njiit bu mu mën a doon bu ko ay nit falee ba jiital ko xale yi bu ñu bëggee folli ki fi ne nañu dem ba élection ñëw ñu indi seen doole jële fi du jànjeekoo mais ñoom bu ñuy wax loolu dañuy xam ni seen bëgg-bëgg la rek ak yàkkamti cër mais fii benn cëre fi am du jànjeekoo moo ko yor te ñi ci rajo yi ak télévision yi nañu wax dëgg mënuñu xale yooyu ñëw ci ñoom di leen wax ay jeunes amateur ñu di leen bàyyi pour ñuy développer loolu mooy indi ñaari nguur benn nguur a fi ne Macky Sall laa ko yor benn nguur a nekk ci làmb ji du jànjeekoo moo ko yor kan moo yor football bi Augustin Senghor est que dafa am beneen beneen président bu dul Augustin Senghor nañu jël mbir yi li ngan ko football moo ngan ko làmb moo ngan ko réew mi réew mi dafa ay textes yu ñuy fale fal nañu jur jaan jekkoo moo fi ne jeunes yooyu dañuy ruubee rek ñun gëmuñu leen xeer wu ñu am nag nañ ma ko sànni attan naa ko ba nga laaj ma leneen. gis ngeen ni mu ko waxee euh, Père jaw tey laa dalal defe naa ne tey da yomb dañuy nuyoo rek euh, tàmmaleeguñu mais euh, keroog dañoo ñëw ñu gis Eumeu ñu gis ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers mu tuus mais que ñoom ñaar ambiance bi am na balagee ñëw ñëwaguma ci wàllam ñëw yokku yokku rythme bi saa Thiès ñëw Bomba ji ñëw mais que ñëpp a mere Lac de Guiers ak Eumeu Sène surtout Lac de Guiers est-ce que jëw boobu dégg nga ko Père Diaw. waaw man wax ci cas boobu damay dellu ci wàllu tuus mi ci stade bi nga ma doon laaj may révéler suma xalaat ndax sénégalais la ci réew mi laa bokk sport yëpp ma tànn ci làmb kon lépp lu ñuy wax ci làmb daf may intéressé te defuma ci benn fan. dama bëgg a CNG mi ñu jox làmb jox ko lu toll ni stade bi dénk ko làmb président bu bees bi komba bu am ba jeex mu jàngat ci cummikaay bu ko mbër defalati boppam nda ko seen CNG def ci programme bi plan A ak plan B tëggkat yi plan A ak plan B. deuxième combat plan A ak plan B ba ci dernier combat booy ñëw ñu jox la sa fiche soo ñëwee fekk ñu fi la takk ko ci ceer yi barrières yi nga xam ni fii nga war a dem mais fii ñu ngi bàyyi sëriñ si di joxe fu yi war a dem làmb dana ma sa yàqu ci côté boobu te loolu na ci brasser jël ay responsabilité am bu doon njiit rek di xam-xam rek ñun ñi ñoo war a jiite seen ndax dañu cee yàgg xam ko dund ko li ñu def ci làmb bu na ko delloo woon ñu jënd heure plus un ay centaine de millions lañ ci def ci wàllu billet kon Bira dañ koy ñaanal bon continuation mais dañu bëgg mu veillé wu jël ay responsabilités ndax mbër yi ku leen bëgg yor da ngay doon jàmbaar ndax lu leen neex rek la ñu xam Bira na nga jël say responsabilités sur tous les plans Alioune Sall dara Alioune Sarr dara yàggalu ko fi lu dul dox ci dëgg yor jukka yi mbër yi mbër yi seen jukko kenn mënu ko accepter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 nekk bés boo xam te ne bésu indépendance la bés boo xam te ne bés bu ñu moomee suñu bopp euh, bii cher na amateur yi kaas nañ ko waaye teewul dem nañ seetaan mais la leen yóbbuwoon la ñu gisul keroog ci bés ba xaw ma nag yow naka nga ko jàngate xam nga làmb lu ne am na fi wax naa leen la mbéy gi li Tigre na ma jéggal mhm. ay doomam jéggal ma ay bokkam jéggal ma ay supporteram jéggal ma Aline Fall bu waaloo. mbéy gi la Tigre de Fass xam nga lu yàq arène Sénégal cummikaay bii ma commencé kaas Aline Fall dafa ñëw samp cummikaayam mbay Guèye ñëw samp ni fii Aline Fall nekk lay samp bu ma juumee ñu ne ma da juum mais Aline Fall bu waalo laa ko teg coow loolu moo tax arène senegal ñu sàqi ko amateurs yi yóbbi bant ñu yóbbi sées ñu yóbbu porte ñu yóbbu zinc ba arène Sénégal tas maa ngi jégaluwaat maa ngi le roi des arènes bëri na ak Birahim Ndiaye ci wàllu xeltu làmb Birahim am fa mu ko egg mu ne nii ci faar gi te làmbaa ngi continuer ba tey ama Sène dafa daan Balla gay defois te Balla gay dàq bëri ci mbër yi ndax mbër yegg ko ko seereel mbooloo ma gis am ku jiite réew mi ñu nekk da ngay daan Balla Gaye sax fekk na moo la man lenn rek ma naqadi moo ma naan moo fi man dan naan li mu nekk sama doom a tax waaye amateurs yi atte nañu arbitre yi atte nañu seen CNC atte nañu bu ñu doon def diplôme numéro un Balla Gaye lañ koy jox bu ñu ko ko joxul dañ koy xotti ba tax na may wax rek ni combat wu keroog bi erreur bi njëkk am mooy Eumeu Sène waa këram dañoo ñëw ci làmb ji jël seeni barrières ñi fii la ñuy installé la dëggeer une fekk na ko ci estade ba mu ñëw samp caw am fa service d'ordre bi taxaw taxawaay bu rafet ak waa CNC ñuy wax ba lag teg waa kër Eumeu seen di garde zone bi nu xalaat ni fa la ëmma seen di teg ndax boobu ñu ngi xëccoo penku bi ëmma seen bi bu ñuy dugg si ñu di ko seen dafa ñëw ba fi ñu samp suñuy ndënd pour war a tuus wuti fa mu teg fa cumme kaayam waaye bi mu ko fa tegee ba pare dafa indi jàmm ju sedd guy ndax ëmma seen togg naa ci sëriñ kër Si ni man duma ma ragal ëmma seen suma xol la nekk ndax dafa yaru dafa baax foo ko seen bëñ yi ngay seen mais làmbaay métier mbër la mu ñëw samp cummekaayam tuus tuus moo xam ni tuus mi jar na juróom-benni junni tuus mi jar na ñaar fukki junni ndax am na ñoo xam ne tuus leen indi ci làmb ji. Lac de ñëw tuus maa ngi gërëm ñi diriger làmb ji muy waa CNG di gërëm kilifa gi nga xam ne mooy kilifa police ñu joxoon ko làmb ji mu gérer ko ndax bi ma leen ñaanee xam ne Balla Gaye Lac de Guiers bu wëree ci zone Pikine mën nañ ko sànni kanet yii may kaas wala ay butéelu saw ma ñaan chef bi ak waa CNC ñu may ma la dëgër jaar ci biir terrain bi dem samp tuusam mais suñu tëggkat fi mu nekk ak barrière Eumeu Sène bi mu def ci mikaayam zéro mètre benn nit ku nekk ci cumukaay Eumeu Sène sànni woo ndox sànni xeer ngir yaru Eumeu Sène ba Lac de Guiers tuus ba pare kenn ku ne dellu sa cumikaay ñu def seeni gàllaaj def seeni programme entraîneur yi joxe seeni xel arbitre bi suuf la ñu bëre ku programme bi nga indi moom nga bëre waaye waay arbitre yàgg naa jox décision arbitre yàgg naa yëkkati loxol bër Modou Lo defal nuñ ko ko defal nuñ ko Eumeu Sène defal nuñ ko Gris Bordeaux defal nuñ ko mbër yu bare niil ah yàgg na ci làmb verdict boo xam dañ koy joxe ci wàllu décision arbitre yàgg na ci làmb jëlaam yàgg na ci làmb Lac de Guiers da daan bëree Eumeu Sène di bëree mais nañu ñeme wax ji Eumeu seen wax ju rafet la wax baa ngi ko seetaan mhm. actuellement kaddu yi dara ñaawu ci mais man mi xamoon Eumeu seen day xam naa ni keroog Eumeu seen bi mu ñëwee bu doon sama mbër su ma demee ba wéet mën naa ko ba jox mais dinaa sama mbër mii da tey jekkul mhm. Eumeu seen mast am combat te bëreewul mhm. Eumeu Sène ay kurpeñ mënu koo tere bëree Eumeu Sène nga jàpp ngemb du ko tere bëree mais keroog Eumeu seen bëriwul naka waa Pikine nangu xam ni Eumeu seen suma njaboot la Lac de Guiers sama njaboot la Lac de Guiers mayuma dërëm Eumeu Sène mayuma dërëm yàllaa ma wàcc géejaway mënoon naa dëkk Pikine mais naa wax dëgg ngir yàlla. mais père keroog dañoo gis 45 minutes. du du du du roofaloo bu ñu roofaloo taxaw nii rek loolu moom defe naa andu fa amateur yi parce que 45 minutes ñëpp dañ ne bu doon Balla Gaye Eumeu Sène mii ngay wax nii tey seetaan naa ko nee na bu doon la Balla Gaye kenn waxu ko fa Eumeu Sène nee na combat yi gën a neex man maa ko bëre ndax quatre match nul moom la dëggee moom kese moo ko fi def moom Eumeu Sène moo ko génnee ci ay kàddoom. waa école bi Lac de Guiers génne la Lac de ma ngi génne ci école boo xam ne ku ñuy wax Alioune bu waalo moom moo ko jàngal bëre te Alioune bu waalo bu la masta daan doo ko daan kon école Alioune Seye la génne kii génne école Balla Gaye numéro un Balla Gaye numéro un mësta niil ci àdduna dafa lay daan wala nga daan ko. kon nag ku am sa doom di ko yóbbu ci école yi yaay choisir professeur bi koy jàngal loolu rek mooy wax ji làmba ja lafa am la deger moo ko def te maa ngi témoin di jéggulu amateur yi di jéggulu ki tëgg làmba ji te xam ne ku fay ñaar fukki junni bëri nga bëgg a gis ku fay juróomi junni bëri nga bëgg gis ku fay ñaari junni bëri nga bëgg a gis ku fay juróom benn téeméer bari nga bëgg a gis ki jënd ci site internet yi nekk ci Europe bari la bëgg a gis mais dama lay wax ni ñaari mbër yi bu ñu leen daan tëkkalee bokkuñu ndax bokkuñu ñi leen jàngal bu dee ci wàllu xam-xamu bëri Alioune Seye mu ëpp xam-xam Balla Gaye numéro un xam-xamu bëri waaye nag bokkuñu ni ñuy jàngale bëri ba tey may wax ni Balla Gaye numéro un jàngalul Balla Gaye numéro deux bëri Balla Gaye numéro deux yàllaa ko jàngal bëri te ku yaa ngi jàng ku yàlla jàngal bëri nga mën a bëri loolu moo waral ñaari combat yi bokkuñu lag li mu mën la def Eumeu seen li mu mën la def mais Eumeu seen keroog bëriwul Lac de loxoom dafa damm bëri naag benn loxo yàlla may nanu ndam mais Eumeu Sène xanaa sax waaye daan na Balla Gaye deux fois daan la degeer nii la moom ñëw rek bëgg dina noggatu xanaa ñun dirigeant wu géejaw yi amuñu expérience ñun ñoo gée loolu bi combat bi di cinq minutes man maa dugg ne lak xanaa sa loxo bi dafa yëngu mën ma loxo bi dafa damm ma ne ko cinq minutes moo des ci combat bi gérer ko man fekkee wu ma surtout combat bi avant la combat man génne naa stade kon nag Pikine sumay njaboot lañu géejawaay suma njaboot lañu te man duma ragal te ku ma seetaan xam ni kii di wax ku am la ba nga laaj ma leneen. ñaari question ak laa ñëw ci la dëgg ñu tëj jóge ci loolu euh, benn bi mooy euh, ni ngeen ko bërelawee ak ni ko am sénégalais yi di bàkkee la dëgg day niil du bëree day daw day rasu boobu mooy première question bi est-ce que du leen tee ngeen am combat deuxième bi mooy damaa dégg léegi ngay wax euh, ñi dagg ñaari junni ak ñetti junni damaa dégg kii ak Pape mu ne mercredi bi comme tey la la dëgg di jël jot reliquat am bés bu jotee reliquat am na na amateur wala supporter mi rang këram mu delloo leen kenn ku ci nekk paasam ba mu paasoon ndax def fa daal. sa question lan la woon. Euh, nit ñi bàkkee la de dafay niil dafay rasu du bëri est-ce que loolu du du du ko téye ba amaat combat am xaw a jafe. waaw la de dañ ko catu. dañ ko catu hmm? waaw du bëree boobu day arrière. ba combat am du egg cat loolu moo ko jàpp ba loxo bi dans quatre jour mu dam ma ndax loxo Lac de Guiers ma ngi demee ci contre te baaroomu loxo du tane loxo bi fii la damm mu mu damm ci entraînement damm boo xam ni dafa yaakaar ni dafa yëngu muy neew yi ñu di commencé ak li Gaston Mbengue daj bi muy risqué di jox avance Eumeu Sène di risqué di ko jox la de boobu ñu ngi ci biir Covid bi bii kuloo la ñu waxoon yàlla dogal na yàlla mi dërëtawul dimbali ñu ñu teggis yi xewoon mu am mille sens Gaston depuis mu commencé tëgg làmb bisu keroogam bi bu ko amee barewul ñu ngi koy yéene mu am ci un milliard de francs mais ma lay wax rek ni Lac de Guiers ko jàpp ba loxo bi damm mu bañ a yàq làmb ji nëbb gaañu gaañu bi ñëw gérer combat bi gañe ko kon nag di fait gañe woon na ko ci décision arbitre tey mu gëm gañee Eumeu Sène ci décision arbitre ñu ngi jégalu amateur yëpp ci ni mu bëree te xam ni prochain combat décidé nañu ñun ñuy waa Guédiawaye xool Lac de Guiers man de gisuma lu mu manqué ndax koo xam ne bi nga duggee ci làmb ba léegi da ngay daan te kenn mosulaa daan. benn yoon nga masa daanu ngay xëccoo roi des arènes actuellement nii dégg na li amateurs yi wax fiñ ko bàkk dañ koy jéem a yóbbuwaat ci beneen école yokkaat xam-xam bi ba bu ëllëgee rapidité bi xeetu bëre bi ñu jéem ko yokk ndax ndax njàng du nono non dañ ko yóbbu ci beneen école nun ñooy xool li nga xam ne xalaat noonu manqué na ko ñu dolli ko ci moom Eumeu Sène am na lu mu manqué Balla Gaye ba tey mu ngi jàng mokkalul kon ñoom ñëpp dañ leen di continuer di ba bu ñuy bàyyi bëre ma nga laaj ma leneen li Pape Sarr wax noo ko gisee. non bul ma dugal ci dimension yooyu Pape Sarr suma frère la mu ngi dëkk pikin man ma dëkk Guédiawaye li muy dund rek laay dund Pape Sarr man dara méttiwu ma ci moom ndax nit bala ngay baax da gëm li nga nekk Pape lu mu mën a wax ñun dañ koy rafetlu c'est parce que du question Pape Sarr man dama nekk kilifaam ndax magam la jàmm la ñu mës a séq mais day wax choix day wax bëgg-bëggam pour may di contrer Pape Sarr naan lii non. yow sax yaa ma tooñ ni ma Pape Sarr mais dogu naa ci Serigne Babacar Sy décidé wu ma ci sama wàllu kàddu may tooñ kenn même moo yii may déclenché di ko wax lépp loo xam ne ñaaw na ci rek nañ ma ko jéggal te nii ma ko waxee nga tege ko noonu bu leen ñëw di xool li baax di ko dagg li bon ngeen di ko génne. wasaare du def loolu. fekkee ne juum naa ci kàddu gi nañ ma jéggal ndax wax ji ñu ma ci ñoom ñoo ciy fayeeku ñoo ma waree nu ne pour ma wax wax a jot may wax. di fekk Guédiawaye à cette si ci Balla Gaye numéro 1 yàlla na ko yàlla jéggal génn na àdduna Daouda Fall génn na àdduna yàlla na ko yàlla jéggal Mor Fadam génn na àdduna yàlla na ko yàlla jéggal xale boobu doon leen topp mooy jaw mii tey yàlla dogal na fii ci wàllu làmb tey fii ci biir Guédiawaye ku ma fi ëpp xam-xamu làmb doxatu fi ma bokk ci ñi ñu ràññee ndax dama ko liggéey kon nag à cette heure ñaaw na may génne sama kàddu luy jaxase Pikine wala yu joxe si Guédiawaye wala yu jaxase Parcelles Modou Lo contre Balla Gaye dama ko tagg ba ñu dafa maa jox xaalis su ma mënul wax lu baax damay noppi te lii ma wax da ngeen ko génne ba nga laaj ma leneen. su ma jógee ci loolu damay ñëw ci Balla ak Bombardier keroog gis nañ stade bi ambiance ba mu fa àndi keroog bokk nga ci ñi nga xamante ni nii euh, bokk nga ci ñu ko dalal jàpp ci loxoom yóbbu ko euh, te combat bi demaayagul yaakaar naa boobu mooy seen premier jàkkaarloo. naka ngeen na andee Balla Gaye te su ma juumul Bombardier mooy ki nga xamante ni moo jëloon roi des arènes bi ci yéen bi bi mu koy jël nee ngeen da ngeen feebar nee ngeen da ngeen nangam maa ngi dégg tamit yeneen kàddu yoo xam ne jóge na ci yéen Bombardier dafa feebar nangam nag naka ngeen na entamé boobu combat. waaw man damay ñaan promoteur yi ak waa CNG Gaston amateurs yi ñoo ma yónni ci yow ak ñuy dund làmb. tuul Balla Gaye bi ak Bombardier ji dafa sore trois comme un dama bëgg a dat yooyu nga xam ni am na yeneen promoteurs yi ko am di say jarbaat di say rak nga wàcce làmb ji ci deux mois yi li des ci deux mois yi pour fii deux mois Balla Gaye ak ji ñu bëree ndax suñu bëree naqaru xol yi dana jeex ndax ñaari jàmbaar ñooy daje mais may wax rek ni Balla Gaye ku ne xam na ni mbër mu mu dajeel dana wax ak yow mais bu bëree ak yow ba pare pare na ci est yaa ngi may dégg may ñaan rek promoteurs yi. ñoo ñu am date yi nga xam ne ci deux mois yii des la ñu jéem a jàppale Gaston bu fekkee ni c'est possible arrangé na mbër yi arrangé na ménagères yi bon ñu mën jéem ku tëgg fii deux mois mais trois mois yi day indi stress bu métti. ci ba da ngeen ba da ngeen a jékku moo tax ngeen wax loolu bëgg xëcc date bi. xam nga làmb yàllaay borom xam nga ñun ñu ngi wax waxi làmb mais tatu làmb ji yàlla mooy suñu borom moom moom adduna bi moom suñu roo moom bis ba ñu ngi koy ñaan yàlla mu may nu nu fekki ko ay ati at dem ba màggat. ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla farag ñun mais Bombardier mbër mu yaru la mbër mu baax la mbër la moo xam ne bu mu duggee ci làmb ji léegi yar ak teggin la woon ñëpp nekk koo xam ne ku ko jël ba ngay bëre moom ba mu lay daan wala nga ko daan doo dégg ci làmmiñam lu ñaaw mais maa ngi koy jox benn conseil Bombardier jarul muy entraîner jarul muy jël xaalisam di wuti sëriñ mais nag maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla farag ñun bis bu yàlla farag ñun Bombardier dara jotu ko dara jotu ma ma indi état yàlla farag man ma jàngal ko bëre loolu laay wax ba nga laaj ma leneen. li ngay wax nii li ngay wax nii da nga da nga da nga da bëgg affaire bi yomb ci yéen wala parce que yow boo ñëwee ne nañ xëcc nañ xëcc combat bi date bi ne bu mu dem ci sëriñ bu mu entraîné da nga bëgg combat bi yomb ci yéen. wax jooju dootuma ci tontu pare naa ci laaj ma leneen. <laughs> gis ngeen wasaare <laughs> lii de feeg la xew am sa mbër tagg ko jël mbër mee ne bu mu entraîné bu mu kii mais baax na mais keroog dama gis ambiance bi bom bi bi Balla Gaye andi. nit ñi namoon loolu mu ñëw bàkku ñu wax mu jël suuf si xëppoo mu nekk leneen loo xamante ni dafay dafay mel ni dafay wane ne sénégalais yi dañoo namoon làmb wala dañoo dañoo namm ambiance man comprendre ma kaw parce que Balla Gaye bi ma gis mu xëppoo suuf si ak état de forme bi ma yor man gëj naa gis boobu Balla Gaye waaw xam nga Balla Gaye mbër ko jur kuy bàyyam du balees ku mënoon ci làmb ji du bàyyam du balees ku ko mas a sax xam nga ni moo la man man du dem këram du balees bàyyu Balla Gaye xawma këram bañu ma fa dem nag mais yàllaa ko dogalul mais bàyyi ma mënoon ci làmb ci kon mbër mënu laa jur mu mel ni Double Less nga yor sutitu mbër ci làmb ji kenn nangoon roi bi ci yow ñu joxaat ko bis ngeen daje ngay wiccax say mu attaqué la sa sutitu mbër jog te nag gaynde la te gaynde bu reggee dëgg day gësu te ñun ci suuf si lañu yàlla bind moo tax bu gësoo jël suuf si xëpp ko ci kawam te ñun ñuy suuf war a dellu ci suuf si loolu rek la ba nga laaj ma leneen. mais keroog bi ma gis mu def loolu dugg ci géew bi nga ñëw ànd ak moom. Euh, jàpp ci loxoom génnee ko lu tax bàyyi woo ko mu yeggal ambiance waa def na li mu war a def bi mu defee ba xëpp suuf dara des ci lu dul war a ñëw ci Lac de Guiers aal moo tax ma téye ci loxoom ndax maay bàyyam maa ko yoroon ci ñeenti junni te dootuma wax fi mu toll moom ku dul Aziz Ndiaye doo bàyyi Ndiaye ëppoo ma doole ci Balla Gaye Balla Gaye ànd nañu ci ñeenti junni ba fii mu toll mosuma xool ci biir bët. ku ma rus la ku ma jox cër la ma su ma ko teg lu mu tegoowul soo amee combat sama lex bi dama koy teg ci lexam ci mikaay yi sax maa leen di tànn man mii waaye li ma jaamu làmb yàlla bu ma ko yàlla at yow mal xiyaam ba nga laaj ma leneen. mais melokaan bi ma la gis nga àndi ko ci làmb ja euh, su ma juum yaa ngi sol vax jël lu weex lal ko ci bopp bi ñu bari avant ñu lay xàmmee dañ ne woon ki mooy sëriñu Balla Gaye bi mais bi nga tourné ñu ne ah kii de Père la melokaan boobu lan la woon dañ la koo digal. wala dafa nekkoon loo sentiroon rek def ko. xam nga maanaam ku yàgg ci njaw di njaw jamono bu ñuy dem làmb rawaan yi nu àndal ñoo nuy jox ay tegtal te keroog bu nit ñi xamoon ni kii jaw la riir mu bare dana gën a am ci stade bi ndax xam na ni xale yi may seen baay maa leen di xelal mais di fait que école de lutte Balla Gaye laa ne te géejaway jiital ma te ma war sol beneen casquette ma ñëw muuru rek méfié te muuru boobu bu ëllëgee mën naa am leneen laay sol damay wut kàngul la xaw ma yooyu ñuy takk danaa xool daal ay gest yu may def ndax loolu buzz la kaala ga daal jig na ma ndax am naa victoire ba nga laaj ma leneen. <laughs> ba nga laaj ma leneen tey Père Diaw monument daal laa ko wax bii géej waay mais euh, làmb jooju ñëwagul démb kii di Modou ak Ama Baldé dañoo waroon def jàkkaarloo seen premier face to mais coow la bare na ci dëkk bi. kon kii bi euh, jàkkaarloo bi yeggul man man comprendre ma daal làmb làmb fi mu toll jamono ji yënga yënga yënga yënga lool. maa ngi jox conseil Luc Nicolaï te sama wax ji na ci bàyyi xel maa ngi jox conseil waa CNC Bira Bira Sène maa ngi lay jox conseil di ko jox Matar Ba ndax man sëtu màbb mooy suma ñaareel suma soxna mu ngi tudd Adama Fall Mariama Ba mooy yaay di sëtu ba Jaxu Ba direct kon Matar Ba moo bokk suma goro mu nekk ministre boo xam ni en réalité man ku ko bëgg la ndax Matar Ba boo toogoon fii léegi woo ko ci deux cent francs da lay wuyu <coughs> ndax xam ne ne nguur yëpp ay jeex Matar Ba maa ngi lay ñaan nga ñaan président de la de la république monsieur Macky Sall combat Ama Balde ak Modou Lo xejul ci stade bi mm-hmm. maanaam stade bi moo ëpp stade Demba Diop mais carton bi dafa gàtt. kon nag bu ñu bëggee mu egg ci jàmm nañ ko dellu stade de l'amitié ñu dellu jël signature bi waaye poor bi dafa fees dell ki bato nañu dem waxtaan ak borom bato yi am na bato yu fa gaaree pendant des mois ligue waxtaan ak ñoom ñu jël xale yóbbu leen ci biir géej gi jël sax géej gi cërale ko ci làmb yéen ko suuf si suufu senegal la géej gi géeju Sénégal la mais nañu séddi géej signature contrat Ama Baldé ak Modou ñu mën leen yóbbu ci biir géej gi. yóbbu fa caméra yi laaj leen bu nu fa jógee ñu def comme ni ñuy def Modou Lo nekk parcelle wax la muy wax Ama de nekk Pikine wax la muy wax mais Ama Balde ak Modou Lo kenn mënu leen boole fii ci biir réew mi wala boobaa di nga génne Elze Mbaaw génne Camp Thiaroye génne police ñoo mën a gérer combat bi fii ci biir Pikine mais bis mu ko tëggee te service d'ordre bi doyul làmb ju du egg. ñoom su ma su mooy innovation nga bëgg. Euh, ki nga xamante ni mooy Luc Nicolaï def ko te su ma juumul li xew ci keroog diggante Eumeu seen ak Lac de Guiers may teg cumukaay bu doon Modou Lo ak Ama Baldé làmb jo toj na. day toj dama la wax ni Ama Baldé ni ko waa Pikine bàyyi xel sama dooma booy Niang sama dooma Mali Gakou dafa may jox ay taraang ma di leen ko yóbbul man nee naa ku dul Yékini doo tey seen jox naa la xaalis Mali Gakou la ko jox koy takk ngemb fii ñu di la dégg man jaw jox naa la xaalis boo ko weddee waxal ci siid bu ma la masul jox xaalis boo waxee ci site yi man di la xaalis ma lay wax ne Ama Baldé fii mu toll bëgg roi des arènes Modou yor roi des arènes bi ak njàmbaaru Ama Baldé ak njàmbaaru Modou Lo yi ku mu neex bàyyi ba arbitre souffle boo demee làmb joj day egg mais problème open press yi ak signature contrat yi waaye nañ ñu dimbali yóbbu ko gore wala ñu dimbali yóbbu ko ci géej gi mais fu ñu ko mën a def nit ñi ñëw kon ci gàttal ma bëgg làmb ji ñu geere ko ci jàmm lig yàgg ngaa tëgg mosoo échec mais boo góor góorgóorluwul ci combat Modou ak Ama Baldé di nga échec bu rëy rëy ñaar ñooñu du ñu ay mbëri cuune jëlal say responsabilité génn ay moye wut foo leen di yóbbu pour nga def seen signature contrat amateur yi seetaan leen bis ba jot ñu yóbbu ko stade de l'amitié ñu bëri ci jàmm ku que le meilleur loolu mooy li ma lay wax ba nga laaj ma leneen. léegi su ma jugee ci loolu damay ñëw ci géejawaay dama ñëw ci géejawaay parce que gisoon naa mbëri yi ku ci bëre di nga ne Malick Gakou ku ci bëre di nga ne maa ngi sant Malick Gakou ma mais léegi déggatuñu Malick Gakou déggatuñu ko fenn diggante mag mbër yi dafa ñagas dafa ñagas wala dafa dafa dafa am lu ci nekk. waaw yow yaa déggul Malick Gakou waaye Malick Gakou moom moom jant la ndax El Hadj Malick lañ ko tuddee Serigne Touba la yaakaar te ñaar ñooñu réew mi mënuñu leen fàtte El Hadj lañ ko tuddee Serigne Touba yaakaar ñaari casquette yooyu doy na bayre xam nga problème bi mooy Malick Gakou amul site wala internet wala rajo bu ma ñemee laaj ba mu jeex te laajoo ma Malick Gakou soo ko waxee bu dee kaset ma dagg ko bu dee leneen ma dagg ko ndax Malick Gakou gàcce ngaalaama laa ko yox fu ma toll ku mu metti bul seetaan ku mu metti fattal sa nopp Malick Gakou deselul géejawaay dara deuxième division la jëlee GFC ba première division yor leen neuf ans at mu ne trente et million millions gàcce ngaalaama Balla Gaye Modou Lo onze million la jaay six millions t-shirt un million la ma jox ni ma jëlal oto jël hélicoptère kon gàcce ngaa la ma Malick Gakou Lac de trois millions laa ko jëndal billet jox ko deux million dama koy dama koy leeral jënd jëndal ko nag jëndal ko six cent t jël hélicoptère mu naaw kon koy takk ma fii ci biir Guédiawaye Malick Gakou dimali na la xam nga Malick Gakou ñan laam ñuy ay relève am mënumaa lim ñëpp mais dafa am rakkam ñu koy wax Ndiaye mu daj lu nekk ci biir Guédiawaye di sama rakk kooku bu doon sama sago rajo laay am bu ma xëy ubbi ko di wax ci moom ba ngoon bëgg naa nag li ma laaj li muy bare bare na nga ko teg di ci teg sama rakk ja Baye Ndiaye di ci teg sama rakk ja Masata di ci teg Ahmed Aydara mi nga xam ni journalist bu nekk mel ne bëgg bëgg na mel ni moom Pape ma Fall Bara Gueye mi nga xam ni doomu Géejawaay la day jaay sax essence publicité wu kon dama wax ni Géejawaay sax mooy doxal réew mi Géejawaay xale bu fi juddoo am nga jom am nga xel am nga fayda kon suñu bëree bërka démb bi jom fulla ak fayda lañ ko bëree kon maali Gakou dama ni la dafa siiw ni xorom Malick Gakou moo jant bi ñoo bokk rawaan mbër yaa ngi koy tudd ba léegi be dafa am ñoo xam ni dañoo am complexe dañu yaakaar ne bu ñu ko tuddee à cette si ñu génn leen seen kër wala dig jël si leen di leen ko tudd bi àll bi ne dadd Malick Gakou rek moo fi dugg di leen dimbali. gis ngeen noonu la leen koy defalee ci Wassare Lamb. Euh, su ma amoon kàddu yu mujj looy tàggatoo ak lan nga ñuy wax lan lay doon. li may tàggatoo mooy di gërëm la de bu baax ci cër bi ma jox di gërëm écrit waalo yëpp man na xëccoo mu monument man liiru jaan bàyyi laa ci moom wala may mag ci moom te ku sonn ci biir géejaway la kon cëru monument jox naa ko bu doon lijaasa mag ko signeel man baayu mbër yi laa di magam wala may baayam wala may nijaayam man ma cër ndax surtout yore jow booli mbooj laa sa sama maam yi ñoo xeex talaa tey man buur laa bu ma dul woon buur passé naa fi bu ma doon jaay sama ngor passé naa fi bu ma yoroon esprit politicien passé naa fi mais maa ngi Malick ba yowmal xiyaam maa ngi Aziz Ndiaye ba yowmal xiyaam Aziz daf may dimbali di ma dimbali di ma dimbali ba xëy yóbbu ma ci yonent bi bi ma yóbbu ci yonent bi toog na un gisuma damaa toog rek sama téléphone sonné Aziz ni ma da ngay dem màkk bàyyiwuma ci leen ba pare bi ko yàlla mayee teraanga dafa wëlbati ku ñëw géejawaay boo doon dagg lépp lii ko dagg ay 40 tonnes ceeb la indi ci biir géejawaay te waa géejawaay am nañu ceeb am nañu diwlin waaye nag dafa xam ni rek fi la juddoo fi la yaroo yaayam ju baax ja ñu koy xujj jóob ak baayam ji ñuy wax Ndiaye di ko xelal rek lu baax Aziz du bëggul ku ko dunguru Aziz du ànd ak kenn mooy dawalal boppam. kon Aziz ñu ngi ñaan man de gisuma yàlla mais yàlla maa ngi lay ñaan nga yokkal ma Fadou Aziz mu dem ba naax yàlla maa ngi lay ñaan nga continuer ma mayal Aziz man de bu doon sama sago sama wërsëg da nga koy wàññi jox ko Aziz samay fan da wàññi jox ko Aziz lu ko nar a dal yàlla na ma dal li may wax nag ku ko seetaan sentir ko ni li ma waxee loolu laa gëm baax na ku ko sentirul sa problème la baay bye. gis ngeen baay baay di leen jaajëfal bu baax a baax ci wasaaya làmb di leen jox dig daje euh, ba beneen yoon di kontaan ci moom bu baax a baax ci dalal bii mu ñu dalal tey ndax yombul woon waaye ñoo ngi koy kontaanee bu baax a baax di ko ñaanal jàmm gudd fan ak wér-gu-yaram di jaajëfal sama cameraman bu ñaawal bi Adama l'infatigable jaa ngeen jëf ba beneen.